vraiment loolu rek lañ ko mën a mën a seedal nangoo liggéey waaw day dem ba jeex su defee 4 émission sa soo ko nee doole waatal neexal ko mu doole waat voilà moom daal donc euh, après nangul wéet nangul wéet soo waxee mu ne man du ma teel ñibbi parce que ma demee sama kër wakaam kenn newu fa damay wéet donc je préfère émission su paree su ma defee sama hors antenne ma yéeg waxtaan ak madame voilà donc euh, bi ma ko déggee nag bi ma déggee que démb dama ma man sama bopp dégg sama bopp ma xool sama tablette gis euh, Daba booy décédé ma kut euh, gars yi dine du dëgg comme ñëpp kenn gëmu ko ma woo Fat Diallo ma ne ah, mbaa yëg nga lu xew mu ne ma déedéet man na ko ah gars yaa ngi ne Daba Boye dafa gaañu de qu'est-ce qui se passe c'est quoi le problème après may xoolaat commentaire yi commencé nag commentaire yi commencé ñii di ne non Rufisque la ngi dëkk ñoo bokk koñ c'est vrai que gaañu na ah ma ne nag caaxaan jeex na wool leen ma Cissé ñu woo Cissé parce que sama sama famille la moo woo Cissé mais jotuñu Cissé Cissé maa ngi koy doog a jot tey suba donc euh, parce que c'était normal moo doon organiser lépp voilà donc daba booy nekk daal euh, koo xam ne teel na dem parce que xale la ñun nag ñun ay médecin lañu ñun nit su demee il faut ñu wax ñu lu tax mu dem ñun ku gaañu dañuy wax lii moo tax mu gaañu ñu situer les responsabilités pour ñu xam lu tax Daba Boye dam parce que Daba dafa dam à la fleur de l'âge te war woon dam à la fleur de lage man bokk ma si ñuy nekk fi di wax ay ndoglu yàlla la de non non non non pourquoi elle est partie l'hôpital nous doit des explications nee nañ ko dafa jab dafa am diabète nee nañ ko dafa am diabète ñu kon suñ ko perfusé dañ ko perfusé sérum glucosé suñ ko perfusé sérum glucosé day de kon ñoom ñoo rey Daba boy dangeen wax ji ñoom ñoo rey Daba Boye ni ñuy reyee malade yi fe euh, bébé yi nekk fale noonu la ñuy reyee Daba Boye parce qu'on ne meurt pas à cet âge je on l'a tué par négligence hospitalière un dimanche après-midi là où il y a pas de médecin xam naa xaw ma kan la fa fekk donc enquête il faut ñu def enquête pour situer les niveaux de responsabilité pour xam pourquoi Daba Boye nous a quitté à la fleur de l'âge sooda nu ko juree man noonu laa ko juree te xam naa Soda mënu wax famille bi am na ko mu leen mën a waxal laajuma si kenn autorisation kenn je dis pourquoi Daba booy est parti alors que am na ñetti jaar na si trois hôpitaux le problème des hôpitaux de l'accueil hospitalier revient dañu wax dafa toog ba jabet bi gañe ko muy doog a dem hôpital. jabet suukar su yokkoo danga koy wàññi médecin ngay waxal suukar su yokkoo danga koy wàññi. waaw. yaayam mooy wax. noppi suy riir rek ça veut dire tension bi mooy yéeg. ba virus bi voilà y a eu un problème y a problème de prise en charge ñu génne ko bàyyi ko mu delluwaat këram après bi mu delluwaatee këram mu daanuwaat ñu jël ko au ñu yóbbu ko principal wala Dantec wala tey ñu yóbbu ko Youssou Mbargane qu'est-ce qui s'est passé à Youssou Mbargane ba mu gën a chuté ba di buddi ay perfusion parce que buddi ay perfusion ça veut dire que dafa agité ça veut dire que li ñu ko dugal ci yaram bi antalu ko donc il faut faire une enquête et punir les personnes qui sont responsables de cet assassinat c'est ça le problème on a négligé une star on a négligé suñu doom kon duñ ko seetaan duñ ko maase la ñuy rek de aux oubliettes de on nous doit des explications est-ce que c'est pas trop tard pour le moment comme denc nañ ko ba pare pour ngeen mën a def autopsie pour lijjanti loolu l'enquête peut être faite et situer les noms les hôpital bu nekk dafay am bureau d'accueil euh, ñuy gérer les soins xam nañu lu ñuy def xam nañu lu ñuy def pour faire l'enquête c'est d'une c'est d'une c'est une facilité waaw c'est trop facile de faire cette enquête waaw ñun waxuñu ay autopsie elle repose en paix à Touba on ne touche pas à son corps. Mhm. maintenant par contre pour enquête pour voir savoir elle on l'a reçue bàyyi nañ ko mu génn jël nañ ko yóbbu ko su mbargaan qu'est-ce qu'on l'a fait. ba ba ñu ba ñu trace yi dafay des ba ñuy bàyyi ko mu dam nag ñi ko xatee fanati encore euh, Thiaroye pour dam euh, pour dem carrément mourir là-bas donc il y a eu des problèmes de prise en charge évidente mhm. gis nga Sénégal on est tous en sursis. muy Daba yow mi yéen ñii ñi may seetaan ñun ñëpp on est en sursis santé bi la ñuy toppatoowul dañ ko dañ ko ñoo xam ne faalewuñu santé côté xaalis bi rek on va pas politiser cette affaire on va regarder la réalité en face de manière crue pour voir que les gens sont en train de mourir par défaut de prise en charge c'est tout voilà une diabétique qui a été mal prise en charge tuée dans les structures hospitalières et, personne ne veut rien dire mais je dis non je dis non. Le problème de Dabo Diop, c'est un problème euh, très sérieux qu'il faudra saisir le procureur de la République pour qu'il fasse une enquête pour voir ce qui s'est passé. Mhm. que yow di nga li nga xam ne moo ci war pour que yoon def si liggéey. ah wax naa ko ba pare man lu ma wax dama def ma dès demain on va s'occuper de ça parce que loolu war ñu ko bàyyi mu sedd c'est manquer de respect. à Daba Boy parce que Daba Boy gaynde woon man gaynde laa dama ko coaché lu muy def yëpp màkk ka def loo dégg nga wax ji kon duma bàyyi mu sedd bàyyi ma sedd c'est trahir Daba Boy moo tax ma ma ma ma ñëw parce que dama ne woon damay bàyyi bu mu sedd waaw parce que man dama sama affaire dafa bëri riir donc ma ne xaar damay bàyyi mu sedd mais bu ma analyser affaire bi nag analyser waat affaire bi bu toute la journée maa ngi sama téléphone rek amul dara lu ma fi ëmb gis naa lépp. gis naa lépp bañ ko denc ba des waa mu dara ma fi yomb Fat Diallo moo ma fi représenté woon si Cissé représenté ma fi ma toog sama kër di observé mais bu ma yeewoo tey suba nag xam nga soo plus de temps passé nga ne mais c'est pas possible tu vois elle a fait son émission la semaine prochaine man lan moo fi jot a jar jar xew ba muy ba muy ba comme ça ñu bu ko accepter comme ça comme au Sénégal on se lève un beau jour on meurt et puis y a rien dit tout et puis on dit écoute on ne veut pas de ce Sénégal on nous doit des explications ces trois ces trois structures hospitalières dina def enquête xam situer les niveaux de responsabilité punir les personnes qu'on doit punir et dédommager la famille de Debo Boye parce que c'était un soutien de famille. merci beaucoup. Euh, Ndella Madior gannaaw bi ñu nga xam ne sax. ba nga koy mujjee gis. dafa ñëw yenn sama kër ak Bijou Ngoné ah. donc euh, dafa doon faral dafa doon jékki-jékki rek euh, parce que Daba Boye mënu fàtte Safir FM Safir FM dafa bokk si yaramam dafa doon jékki-jékki rek daanu si kër gi su daanu si si kër gi day yendu après day promet day ne maag dinaa ñëw reprendre seen émission voilà maintenant bu mu marié ba pare xam nga dañuy jigéenu Sénégal yi moom suñuy sëyee rek duñu amati jot waaw duñu amati jot donc après n'a pas pu respecter ses engagements mais euh, dama koy seen à damay damay jékki-jékki rek mu tudd Safi parce que Safi dafa bokk si moom. voilà dafay bokk si moom day day bëgg euh, sa Bada Boy safu xamul Safi la xam fu mu munti nekk. Safi la xam mooy damay ñëw de reprendre sama émission day ñëw dafa dafa teniroon reprendre émission mi

ñoom ñëpp noonu lañu ñu mel dañuy jékki-jékki rek daanu si waaw parce que mënuñu fàtte Saphir Saphir moo leen moo leen moo leen gunge donc euh, fi ñu mun munti nekk tamit da ngay jékki-jékki rek kenn ñëw daanu si voilà et ça c'est important voilà. Euh, oui euh, je vais pas dire que dafa am mystique daba booy feebar woon du feebar yi ñuy euh, dafa am feebar yoo xam ne dañ koy dund dunduwaale à vie une hypertension artérielle dañ koy dund à vie diabétique dañ koy dund à vie du feebar boo xam ne da lay tëral ba doo ba ñu lay yëkkati di teg daba booy dañ ko toppatoo bu baax si hôpitaux yi doggali ko c'est seulement ça dañ ko rey hôpital. kon yow da nga que gis na médecin. équipe d'accueil parce que ñëpp xam nañu dimanche médecin yi di ngi fa nekk kon ñi ko accueillir ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko saraxe waaw ñi ko accueillir ñoo ko saraxe du moom donc li nekk si hôpital yi dañ ko war a régler définitivement Sénégal nit ki balaa nga koy perfuser il faut nga xam ndax dafa am allergie il faut nga xam ndax dafa am suukar il faut nga xam ndax dafa am xorom nga doog ko perfuser mais doo ñëw rek perfuser ko banaliser ko noonu mu gaañu nga bëgg yóbbu morgue dem denc ab que personne ne rien ah Donc, euh, donc c'est ça le problème, quoi. Il y a une erreur médicale, il y a une négligence médicale, c'est une évidence parce que l'hôpital l'a wàcce liggéey lu tax hôpital seetaan mu wàcc liggéey saa yu nit la wàccee liggéey dañu war a xam lu tax mu wàcc liggéey kon nañ ñu wax lu tax mu wàcc liggéey c'est aussi simple que ça. Pikin Ndofène yaay Ramatoulaye Dieng